alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin amma baad mbokk jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ndax ragal yàlla kat mooy ngën ji yóbbal fa inna xayra zaadi taqwa mbokk jullit yi sunu borom tabaraka wa taala nee na wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati hiya ahsan nee na bu leen dagg santeeg ahlul kitaab yahudi ak nasaraan yi lu dul ci anam nga gën a rafet illa alladina zalamu lu dul nag ña nga xam ne dañoo doon ay tooñkat nag ci ñoom borom bi nee na wa qulu linnaasi xusna su ngeen di wax ak nit ñi wax leen lu rafet loolu mooy melokaanu jullit mooy yar bi ko lislaam yar borom bi nee na inna masala isa inda allahi ka masali aadama xalaqahu min turaab nee na isa ni ko yàlla bindee ak ni mu bindee maamam aadama dafa am ak nuru xalaqahu min turaabin tumma qaala lahu kun fa yakun yàlla da koo bind ci suuf ne ko nekkal mu daal di nekk isa it bu fekkee yàlla da ko bind ci ndey yu àndul ak baay loolu du kéemaan ndax aadama bind na ko ci lu àndul ak ndey àndul ak baay borom bi tabaraka wa taala nee na wa qawlihim inna qatalna almasiha isa bna maryam nee na gaaya nee nañ rey nañ isa alayhi salaam rasulallah muy yonent bi yàlla yàlla nee na wa ma qataluuhu reyuñu ko wa ma salabuuhu nee na daajuñu ko walakin shubbiha lahum dañoo indi jeneen jëmm di nurul jëmmam ñu rey kooka defe ne Isa lañ rey yàlla yëkkati ab yonentam yóbbu ko ca kaw moo tax ma ne day wa ma qataluhu yaqina ñooñu dañuy wax rek waaye rëyuñu ko keneen lañ rey mbokki jullit yi kenn ku nekk xam na ne fan yi coow li bari na lool ci sababus ab document boo xam ne kilifa gu nekk ci église da ko bind mu bokk ci catholique yi noonee bi mu génnee ñu bari ci biir jullit yi jàngat nañ ko ñu bari tontu nañ ci waaye booy xool tontu yooyu da nga ciy gis yenn yoo xam ne wet gi ñu ko jëmale rek mooy wetu politique kese wane ne kii daal day wax fekk dafa représenté réew sàngam rek moo tax muy wax waaye nun diggante julli ji ak église bi amul jafe-jafe awma lu day wax représenté ñeneen waaye nag église bi amul jafe-jafe loolu nekkul wax joo xam ne ju dëgër la ku settantal kayit woow yi xam la waa ji wax ci biir dëgg dëgg dëgg ak li ci nekk ci ay léebu ak ay sànni xeer yoo xam ne dafa jëm ci lislaam jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa jëm ci weddi alquran ak weddi gu leer nañ ànd ak place bi nga xam ne moom toogee ci église ba ku settantal yooyu day doo am loo nattable ci ne kii ci turu diine lay wax donte mën nañoo wax ne day wuute mboolem day wuutu dafa taxu place mboolem li nga xam ne culture occidentale la moom lay dundal loolu yi nag doon koo gi mu doon kilifa mu nekk kilifa diine wëlbati ko wax wax yoo ko ne nat tëbloon ne wax ju xóot la ci biir diin bi nga xam ne kuy jàngat ci kaw sax te xamoo taarix taarixul adiyaan waxuma taarixu diine yi lislaam kese ku ko xamul doo xam waaji li muy wax dëgg dëgg dëgg ay xeeti saagaa ci biir ak i xaste ak i gaaruwaale ak i léebu yoo xam ne jéggi na loolu sax moonu dugal noonu bu ni ci di ci wax ci turu diine waaye su fekkoon ne waxi politique kese la dañ koy bàyyee politicien yi danañ ko mën a tontu li jëkk ci luñ war a xam moo di ne bu ñuy wax tasaamu ci lislaam ñu koy wax moo di xajoo keneen wala yaatu dënn loo ko ci tudde baax na bu dee ci lislaam moom njéggal ak rafetal ak yooyu yépp dañ koy tuddee cosaan mu nekk nag benn jikkoob lislaam boo xam ne jikko bi cosaanu la ci ëpp jullit ëpp jullit dañ koo yare ak yaatu gën dañ koo yare nangoo jëflante ak keneen jullit yi noonu lañ mel moo tax ci biir sharia booy jàng alquran wala ngay jàng hadis da ngay gis lu bare bare bari loo xam ne loolu lay tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaraka wa taala digal na ko tolérance ne ko wala tastawi alxasanatu wala sayyi idfa billati bi ahsan yow booy jëflanteel jëflanteel yow jëflante bu rafet ndax lu rafet moo gën lu ñaaw soo defee lu rafet ki doonoon sab noonu da ngay jëflanteeg moom ba mel ne sax sa xarit la mu ne waaye loolu nag ka koy man mooy koo xam ne sunu borom tabaraka wa taala da koo may ak muñ ba noppi may ko ëpp cër boo xam ne bu màgg la bu mu ko war a fay ëllëg ñaareel ba bu ñuy wax tolérance dëgg dëgg dëgg l'islam moo ko am maanaam moo ko fi indi moo tax liñ ñu jàngal mooy wala tasubbu alladina yad'una min dunillahi fa yasubbu ñee la ñuy jaamu te du yàlla kenn ku nekk xam na ne bokkaale la ci yéefar la waaye bu leen leen ŋàññi ci loola ndax nit ki mën naa nekk di bokkaale nga ŋàññi la muy jaamu mu jaamu mu ŋàññi li ngay jaamu yow te fekk li ngay mooy yàlla mooy dëkk su fekkee sa ŋàññi nag day tax nga ŋàññi yàlla kon bul ŋàññi kenn loolu day wane ne jullit bi ci naturam liñ ko yare mooy ku yaatu la moo tax ci taarixul islam boo koy jàng da gis ne jullit yi jógoon di tasaare lislaam ci kaw suuf yoruñu woon xemmemtee bi ay réew yoo xam ne dañuy ñëw not leen nangu seeni suuf nangu seeni alal tasaare seen culture foofa yàqal leen seen culture loolu doonul woon seen ndox yi moo tax amut yenn jullit yoo xam ne mas nañoo ubbi ëpp dëkk ba noppi continuer toog fa yor ko déedéet ñu ubbi dëkk ba kay dañuy jàngal waa dëkk bi ñu man koo yor ñu bàyyi rek seenu bëgg dem wute lool ak ñi xam ne buñ ubbee ab dëkk la ñuy jëkk a def mooy toroxal ña ba doonoon ay gor ña fa doonoon boromi xam-xam ña fa nekkoon ay buur atte daaneel leen ña soobe ñu yëkkati ñeneen ñoo xam ne dañ leen di sa seen culture bopp su ko defee ñu raxas ba mu set civilisation baag histoire baag seeni jaloo rek lépp mel ne dara ba mosut cee am ki daana ci réew mi kay moom moo in moo am lépp ñetteel ba mooy diine ji nga ne mooy diine lislaam nga xam ne dafay woo ñi ko gëm ne nañ gëm mboolem yonent yi yàlla ma sa yónni jooju diine mooy diine ju am tolérance soo ko xoolee mu jàkkaarloo diine joo xam ne dañoo weddi alxuraan di nga gëm weddi yonent bi nga gëm su boobaa suñ laajee kan moo am tolérance da nga xam ne diine lislaam moo am tolérance yow mi ñëw jàkkaarloo man ñeneen dañuy def is jalo ma ne la sab yonent bi nga gëm yow ab yonent la boo xam ne alxuraan nee na ci ñi gën a sell ci lañ bokk moom mu ne ma sab yonent du yonent ma ne ko téere sàngam wàcc na ci yonent yàlla boobu mu ne alxuraan wérut wàccul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku base bu ñuy taxaw ba jalop amunu ko ndax mayoo ma occasion pour a déclaré da nga weddi li ma gëm lépp ma gëm sab yonent kon jooju lislaam mooy lislaam bi am tolérance ñeenteel ba lislaam bi am tolérance comparé la islam bi la wax ne mën ngaa takk jigéen joo xam ne ci ahlu kitaab la bokk indi ko ci sa kër mu fas yéene nekk doomi yaayi say doom mu dikk indaale fa diine ju dul diiney lislaam ak yeneen ya cay tegu yëpp mën nay naan sàngara ci biir kër mënoo ci dara ndax da ko indaale man nay bokkaale ci biir kër gi waxuma nag tawarruj ak sol ay yére yu baax rek def yaramu neen dara doo ko ci mën waaye teewul lislaam dagan loolu mooy tolérance kon su fekkoon ne kooku ki jàkkaarloo yow nga xam sa doom ji nekk xale bu ndaw ñëw di jàng ci biir daaraam mu ne ko yow kooku bu doon soxna la takk ci jullit yi bu ñëwee kooku dana ne ko bul bul muur bul woor dana ko tere lépp loo xam xeetu diine yow ngay jullit bi mën a takk jigéen ci ñoom bàyyi ko muy dund diineem ci sa biir kër amaana mën naa yor kurwaam boo xam ne bu ko yeesu jóot ceeb naa naan sàngaraam bu ko neexee mën naa def yaramu naan di buy dugg ak buy génn loolu lépp soo yoon nekku ci ndax ci diineem boobu tolérance képp moo ko may ba ca tegu mooy diine la joo xam dafa am déggiin bu rafet ci yonent yàlla isa jox ko bu kawe sellal ko alquran gëm loo la ne yonent yàlla boobu yi kat jaamaarloo nga amoon digganteem ak noonam yàlla dafa feeñal moogisaati yonent boobu mooy noon ba mënalu ko dara jegewu ko sax sunu borom tabaraka wa taala dafay yëkkati ab yonentam yóbbu ko bàyyi de nag seen coow moom kii ndax moo sellal jëmi ci yonent boobu yi wala kii wane ne gëm na ko ba noppi nuur ne axu kay noon ba kay da koo jot jekk ko rey ko rey nu ñaaw daaj ko ñaari gëm-gëm yooyu ban moo ci gën a dëggu ak yonent yàlla boo xam ne mu sell la chaque ne gëm-gëmul islaam mooy gëm-gëm bu sell la moo dëppoo yonent yàlla diine joo xam ne day digle ak maandu ci wax na nit ñëpp a yem fa kanam suñu borom tabaraka wa taala ku gën a ragal yàlla yaa gën waaye diisul ne kii moo gën ndax ci xeet sàngam la bokk kii moo gën ndax couleuram daa xonq mu ñuul kii moo gën ndax dëkk sàngam la dëkk yooyu yëpp lislaam amul diine yoo xam ne maandu te lay tasaare ci kaw suuf te kuy tasaare maandu te yaay tasaare jàmm loolu wuute naag benn minorité bu man a nekk ci biir ak majorité boo xam ne di lañ la ëpp kenn xamu nu mu toll ànd ak loolu ngay menacé nit ñi di leen xupp di leen wax ne balaa yàgg fitna dana taxaw xam nga ne loolu kenn mësu koo dégg minorité boo xam ne matul téeméer bu nekk matoo ñaar nga wëlbati ko di taxaw naan leen fitna dana fi taxaw balaa yàgg loolu kenn du ko wax ñu xam ne yonent yàlla isa alayhi salaam ci alquranul karim juddu bu laab la judd yaayam siddiqa la ko alquran tudde ku laab la ko karim tudde jullit yi buñ ko tudde aleyka salaam la ñu aleyka salaam kon kooku mooy ku sell ci alquran ku laab ci alquran wuute naag diine yeneen yi nga xam ne ci seen biiri kuréel am na ci ñoo xam ne dañuy wax ne isa juddu wut juddu bu rafet foofu la foofu laa ci mën a yem ndax nan alxuraan jàngal noonu ne dafa judd ci lu ëpp bàyyi nun julli di noonu loolu leer na ci suñu bopp ndax gis nan ku judd te amul ndey gis ku judd amul ndey euh, kon day mel ne maam aadama mooy bàyyi ci góor lañ ko bind mu ñëw doon jigéen waaye amul yaay nu gëm ko ñeneen na sun maam aadama amul baay amul yaay sun borom tabaraka wa taala da ko bind ci suur kolkol ba mu neex ko ko kuñ nekkal ko daal di nekk kon du nu jaaxal sunu alquran xibaaree ne kii dafa juddu ci yaay te àndul ak baay waaye ñi seeni xel nëx te lëj te xamuñu maqaama bi yonent am xamuñu alquranul karim ak xabaaram fan la toll ñooñu ñooy walbatiku di waxtaan bay àgg ci juddu yonent yàlla Isa waaye ak jullit moom loolu du ko def moo tax borom bi daan wallati axsanat farjaha ki nga xam ne ku ñoŋal boppam la fa nafaxnaa fiiha min ruuxina borom bi tabaraka wa taala nee na ma sànni ko sama ruux boo xam ne man maa ko moom muy lay dund ca biiram wa jaalnaaha wabnaha ayatan lil alamin nee na ñu def ko moom Mariama ci boppam ak doomam jëmuy Isa lu def leen nekk ay ci mboolem bindee bi ci mboolem bindee bi kon lii mooy taxawaayu lislaam mooy ak maanduteem mooy aw melokaanam képp koo xam ne da ngaa jëm wax di gaaral diine bi wala ngay wax ci alquranul karim na nga xam ne ay jullite ngi fi ay labbe amee ay imam ngi fi bu ay professeur amee ay jàngalekat ngi fi ay leneen amee ay ndog laa ngi fi di leen dégg ku wax sànni danañu wax delloo la boo jéggee wax nag jëm ci leneen su boobaa du ma wax ni ñeen ñuy waxee politiciens yi di wax ne noonu waa parti sàngam war dañoo taxaw leen waaye dañuy wax ne jullit yépp war dañoo taxaw su boobaa dañuy wax ndax kat ku wax jëm ci alquran wala nga wax jëm ci yonentub lislaam waxuma jullit Sénégal waaye jullit yi jàddu yépp nga laal foofu lañ mën a yem ci loolu mbokk jullit yi liñ gënoon a baaxoo mooy suñuy ubbi jàkka dañuy faral di waxtaan ci importance bi jàkka am bi nga xam ne jàkka am na ko ci mën a defar nit waaye suñ jàkka ji jàkka ji yees la fi yeesut la ndax yàgg taxaw di liggéey ci defar nit defar ak société waaye dem na ba mu yàgg ñu yeesalaat ko ubbiwaat ko mu fas yéene seqiwaat beneen jéego bu ëpp ba mu doon seqi di ñaan suñu borom wa taala mu li ko barke eh, mu booleeg la ko nekkoon ci barke dolli ko ak leer mu ànd ak la ko nekkoon ci leer fay aw yiw nag képp koo xam ne rek laal nga ci li ko taxawal ba mu mel nii mu ngeen tey moo xam ko jël alalam def ca la wala ouvrier ba taxawoon di tabax wala ka nga xam ne moo yore direction ba di doxal ñoom ñëpp daal yàlla ne suñu borom tabaraka wa taala ñu def caaya bi yoo xam ne dañuy ubbi aw yiw di tëj aw ay di ubbi jàmm di tëj fitna te tasaare xam-xam ci béréb bi mu nekk bérébu jàngukaay bérébu jubbantikuwaay ba mën a bokk ci béréb yi nga xam ne dañuy delloo jàkka fam yayoo nekk ci biir lislaam wa sallallahu